yàlla ko def xam nga inaaya rabbaani dafa am yonent bi dafa wax ne jëlee naa ci yàlla ñett ñett ñetti mbuus xam-xam première bi yulleen naa leen ko mooy sharia maa ngi nañ ci yem ñaareel bi moom la daan tëjoo xaaru iraq buñ tëjoo tëj buñ tëjoo fay làpp moom loolu xam la dafa am xam-xam boo xam ne la imaamul Junayd di waxoon cheikhu shahid xam-xam la boo xam ne doo ci yegg mukk lu muy nga dajal góor bu ci yegg Cheikh Souleymane Niane mii xam-xam boobu la woote ci Mboudaay Séeréer gii di ko xam xamle mu dëppoog alquran dëppoog sunna ci lu dul benn sikki sàkk kon loolu mooy tasawuf kon tasawuf ay classe la classe ba bett diplôme lañ ci joxe loolu mooy tawhidul ilahiyya kon loolu mooy tasawuf suñ ko tënkee am na nañu wax ne tasawufu suffatun la suffatun mooy firi ruqu ruqu maanaam jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñoo xam ne Abu Hurayra te moo leen jiitu woon dañ daan nekk ci yuqu yi jàkka ji di zikkar di julli di woor ñooñ lañu tuddee ahlu tasawuf ahlu tasawuf dañoo ñeme woon fatu am lu ñu wax safu safu mooy firi sappe ahlu tasawuf kon jotaay bii ñu def ci jotaayu ahlu tasawuf la bokk dañ daan dajee di dénte ci yàlla dañ daan dajee di yégante ci yàlla dañ daan dajee di nàmmante seeni jaas mooy ngay tudd laa ilaha illallah may tudd laa ilaha illallah yaa ngi nàmm sama jaas maa ngi nàmm sa jaas ahlu tasawuf loolu fa bokk seen jotaay kon madarasa la boo xam ne ku si génn rek da war a baax da war a set da ngaa war a sell keñaan dafa war a denc ci yow coxor dafa war a denc ci yow bëgg daraja dafa war a denc ci yow rëy dafa war a denc ci yow yooyu la yoo xam ne ci xol lay nekk la tax ñuy wuti sëriñ loolu la du lenn lu muy yow ayib bi nekk ci yow aari bi dañ ko wax ne ko waaw kan mooy seexul murabbi mu ne seexul murabbi man faraqa fi nafsihi mooy ku pare ci boppam ci bépp ko kooku mooy seexul murabbi ku pare sa bopp ci bépp ayib kooku mooy seexul murabbi parce que soo parewut sa bopp woote woo maqaamay seexul murabbi ku ñëw tawat bi nekk ci yow mën nga ko def ko wàll loolu lañuy bañ mu ne man faraqa fi nafsihi moy ku paré ci imam imaamul dine jun laaj ko lañ mooy tasu mu ne attasu kullu akhlaq fa man saada alika bi akhlaqi mu ne saada alika bi tasawuf tasawuf leppam jikko la kep ku ko ci jikko yu bax sa tasawuf mu ngi dole waye sa jikko yu bax feet mu ngi effacé wu rek sa tasawuf mu ngi wàññi da ngay dem di del di wat ba suma radal naa asala saafilin laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim ku fanaawu ci yàlla fanaawu ci yonent bi te ku fanaawu ci yonent bi doon yonent bi dara du ko didi yonent du jëmm yonent bi xeet yonent du askan yonent du maqaama la mooy ki ñu yónni ak liñ ko yónni loolu mooy diggante sëriñ ak taalibi al ulama warasatul anbiya sëriñ ñaar mu ne baat lañ sopp rek moo tax kuy laaj ci yonent demal nga wari bareel xam-xam yi ñoo fi nekk nekk ay yonent ñoo fi toog toogaay yonent ña toog seen doon ñoo leen tuddee asaab asaab moo ñu ànd moom ci xol ci lu dul naxante ci lu dul werante waaye ñi jàll bariwut asaab yi bari nañ waaye ñi jàll bariwut soobu ci yàlla yomb na waaye yegg yombul sax ci yàlla yombul Cheikh Souleymane Niane mii jël fi ku ko xam xam ko ci bëgg yàlla ku ko xam xam xil ko ci jàmm yàlla xeebul kenn kooku mooy yegg ci yàlla rek yegg ci yàlla takk yore kàddu pied yàlla bi dose yam doon joxe démb su ko joxe waat tey dafa mel ni tey dafa doog a wàcc kooku mooy mat kooku mooy kaamilu asr du moom maqaamay pii bi la kooku ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax yashabu cheikhan arifan masalik ga mursid muhin waxoon loolu moo ñu dal tànnal sëriñ boo xam ne bu xam yàlla yegg ci yàlla mën a yeggale ci yàlla nga sóobu ci moom mu yegg ci yàlla yeggale la ci yàlla waaye nag yu jaahidu nafsa li rabbil alamin waaye nag fexeel jihaad ak sa bakkan parce que am na loo xam ne sëriñ bi du la ko defal mbokk xam nga médecin bi nga ñëw jox ko sa bopp mu xool la ne lay yow sa tawat lii ak lii la comprimé nangam ak nangam ngay jël loolu du la ko defal yaa ko defal sa bopp sëriñ bi soo ñëwee jox ko sa bopp laa ilaha illallah la lay jox mooy comprimé bi demel nga taxoog laa ilaha illallah soo taxoog laa ilaha illallah nag lu mat 40 ans te sa tawat jàng sa tawatu jàngaro sa tawatu xol saafaru wallahi sëriñ bi wàccoon na ak yow imam eh, imam al-Qassani wala nga jël sëñ Abdou Khari Gaylani 40 ans la am ak ci yàlla 40 ans yow nga sóobu ci yàlla 40 ans yu ñu defal la ko ñeenti weer nga sóobu ci yàlla yegg ci yàlla dëgg dëgg 40 ans yi sëñ Abdou Khari Gaylani suñ xam war ngaa xam ne a ah, mayu démb yaa ak mayu tey wute waaye nag ku sàggan la nga yoroon rëcc la parce que lu la yomb rek mën nga ko sàggane alal su yombee nit daf koy foye waaye ki ko liggéey daj ci lu ne ko am alal daf ko tarbiya ba ko gisee moo gën a nërmalu ci si gis nga ku liggéey liggéey liggéey ñàkk bu am alal soo ko gisee taalibe lay doon dafay am yërmande parce que lim daj ci laata muy daj am alal moo tax nit dafay tarbiyu alal du am alal doon taalibe nit dafay tarbiyu yàlla si yox seexul marab bi tarbi seexul marab ko alal xaalis wala lu am yëpp ñun ko rek sëriñ bi tamit dara ji am taalibe ko jox rek xam nga yonentu soo ko bëggee xam xoolal saxaaba yi rek yonentu saxaaba yi ñoo ko feeñal yonent bi lu muy ñu loolu màkk du laa ilaha illallah Cheikh Souleymane Niane mu indil waa mu daay du laa ilaha illallah yonent bi fu mu fekkoon màkk du si lënd Cheikh Souleymane Niane fu mu fekk du si lënd kon yonentu lan la yonentu mooy bu fekkoon nit ñi réer mu gindi leen réew man gindiwuñu yonentu mooy ku ñu jox laa ilaha illallah xaalam yëpp laa ilaha illa allah taxaw melaw yàlla boo taxaw melaw yàlla bu taxaw melaw yàlla ba far doon ko kon kay alhamdulilah loolu lañ doon ñaan yàlla defal nañu ko gis nga tasawufu Cheikh Ahmad Bamba dafa wax ne wa xaasilu wa wa xaasilu tasawufi aalimu amil bi xilmihi xaqiqatan walam yamin wa saara safiyan min al aqdaari mumtali al qalbi min al afkaari muqattihan li rabi min al basar musawiyan diinaaru ayni bil madar Cheikh Ahmad Bamba dafa wax ne dëgg-dëgg nit ci tasawuf dafay nekk aalim moo tax drapeau bi njëmbee ko yokk fii ngay fekk xale bu juddu tey ci péeb yàlla bi màgg tey ci biir yàlla bi fii ñu koy fekk mu ne nit yi tasawuf dafay nekk aalim da ngay doon borom xam-xam waaye en même temps ngay pratiquer sa xam-xam aalim mais amil bi ilmihi xaqiqatan la sa dëgg-dëgg wala mu yemal sa dëgg لأن فصار صافيا من الأقدار نقص قلب السلبج تلف له يحيي من قلب قلب من القطع من الـ من الـ من الـ من الـ من القطع مساوية دينار عين بالمدر كأري ما فوق كل قبي ولا تري من بدا إلى إلى المليح يبتوى الكريم واللئيم والبر والحاسي والتقتيم نقص قلب فاستل أخي أفكار لكن لما يقول يا ليوقا دنيو فاستل بالله سؤال الفكر دنيو تقضي وقتك toog di wax bi parce que liñ jot dafa fees del ba mënuñu ko ñàkk ñu te gisuñu ko jox dañuy toog di wax ne ñu ne waa ji dox na du dox de dox bu dul dóori dox bu dul saag dox bu du sàcc dox boo xam ne mu ngi ci liy doxal jamono liy doxal mbiru yàlla suñ ne leen dox na neex na xam ngeen ne fii ay dox tooguñ fi de waaye njëlbeen bi dox lañ ko tuddee woon te moo meññ nii loolu sant yàlla kon axlu tasawuf noonu lay mel Cheikh Ahmad Bamba mu ne dafay yor dafay yor ji koy niir niir mu ne niir bi su ritee fii booy sotti ndox xam ne bàyyi tooli kenn ki gëm yàlla ki gëmul yàlla yéeféer ñëpp lay sotti sufiyaangi kooku kooku mooy sufiyaangi sufiyaangi xam ne ku gëm yàlla xam ne ku weddi yàlla xam ne gumba bi xam ne laago ñëpp la def muy boppam kooku la ñuy tuddee sufiyaangi kooku moo yegg ci yàlla dëkk gis meloog yàlla yi sa nga ñaan mu ne ma moo moo rafet ci ay melo waaye moo am kattan ci jëmmum waaye moo mot ci jëfam ak waxam yàlla moomu laa leen di dénk sax leen ci suy neex na nekk yàlla suy naqari na nekk yàlla te yàlla naqari amu fare de yàlla moom jeex rek te ku jeex rek ba neex yi mooy sar di sar di sar ba far soppeeku moom kooku nag pied da boo xamante ni foofu la ñuy yóbbu mu ne ñaareel ba dafay yor jikko yi wala ñu tuddee ko jikkoy dawkat bu dee ci teg gi ñu tuddee ko dawkat bi mu ne dawkat bi soo ko engagé mu daw jublu si la nee na borom xaj bi su waxee nga gis mu tëddaat gis nga taalibi su sëriñam waxee na toog na toog su waxee na taxaw na taxaw su waxee waxal waxal su ne demal demal yoral jikkoy dawkat boobu mu ne en même temps yor jikkoy janab mu ne janab su gisee lu mu bëgg dor wéq mo ci way na mo ci tus gis nga talib su bëggee yalla kenn ta dox digënté mo borom ñaata talib ñoo fi yëkkati jaar ray seen baye ak seen yaay waxuma ray jaasi ray ci baat la ilaha illallah du jeex ah amna yéfer yo xamanteni xamante ñi jass lañ ci takal seen baat pourtant l'islam li ñuy bañ tay li ñuy bañ tay top gi ñuy bañ pourtant mo mo mo suuxat garbu l'islam yonent bi kan mako ko do abou Abubakar Aboubacar bi muy dem Makka bi mu jógee ko Makka di dem Madinatu a dafa bàyyi bàyyam mu doon gumba bàyyam Quhaafa la tuddoon bàyyi fa ay xale jigéen dafa bàyyi Quhaafa xam nga lu mu doon wax Aboubacar nax na suma doom ji yóbbu na ko Makka danaa torop loolu la doon billaay li ñuy wax tey démb démbay waaye naaju démb nag footu démb naaju tey footu tey kooku loolu la jàngalee gis nga mu ne Aboubacar dem na madinatu mun na war a ànd ak yonent yàlla yonent bi saa sallam ko waaw dem na de Aboubacar Aboubacar ak yonentu Aboubacar ak yonentu jël léppam jox yonentu bu yonentu xëy doon lim doon kon kay topp gi wax dëgg yàlla foofu la mu ne ñetteel ba dafay yor jikkoy sën xam nga sën lépp lu génne ci kër gi ci tilim rek foofu bàyyi ko ak diir fekk mu tajil yaa ko soppi ko boppam aarifu billaahi kum jaxasoo weer ñaari weer loolu la dem la mu soppi la leer du dëgg ñu jaxasoo ñoo moom bu ñu ñëw dañoo leen mu mën am na ñoo xam ne sax une semaine defuñ ko fi am na ñoo xam ne ñaari fan ñetti fan mu soppi leen mu ñu moom am na ñoo xam ne 4 mois 3 mois extra maam Cheikh mu ne ma nag am na lu ko tënk sën am na lu ko tënk pour mu soppi ko ma ne ko loolu may lan mu ne ma kaw su de gaaw ci sotti ko ak mbuus ak biteel xotti biteel xotti biteel mën na yàgg si sent bi sotti ko mu ne ma am na taalib yo xam ne sëriñ si mënoon si ñoo tos wax wax bàyyi rek waaw ñooñu moom mënoo leen di sopp mukk ala kulli xaal loolu dafay am parce que woote am rëy am ñoo xam ne du jàll dañuy seet bu coobaree te xam ngeen waa àjjana waa safara ah war nañoo jaxasoo waxtaan nag parce que waa àjjana waa safara la ñuy dundee de wax dëgg yàlla waruñoo am benn jafe-jafe war nañoo toog waxtaan parce que teraange àjjana ji yëpp safara lay bàyyi ko billahi lesi laa ilaha illa te loolay dëgg mu ne ba si topp dafay yor jikkoy suuf gis nga suuf si ku baax ku bon ku am ngërmande yàlla ku amul ngërmande yàlla ñëpp ciy dox waaye moom mu ngi ne dégg rek gis nga aarifu billaay su ma tee ci yàlla dana jax koo xam ne du yàlla ne ko dañ ko soxna soo xam ne lu bon lu ne la koy wax waaye mu ne teg rek moo mu ne léeg-léeg dañuy indi kaas bu bi mu ne bu ñu indee kaas bu tàng bi indil kaas bu sedd bi kaas bu tàng bi mooy suñ ñëwee naan nee ne ne noppi rek loolu mooy kaas bi gis nga mu ne safara safara du ko fay mukk déedéet safara ndox ma koy fay gis nga ku ñëw ci yow indi la jalaal indi ko jamaal góor ak jigéen ñooy ànd meññeef am góor ak jigéen suñu amul tajiliyaat yàlla yi du dox mais góor yi kese dara du sotti jigéen yi kese dara du sotti kon jalaal ak jamaal ñooy ñëw asamaan ak suuf foog ñu am nga xam daal moom sax dañ waroon a dugg ah parce que asamaan yi gars yi di wax ak suuf yi gars yi di wax il faut ñu leeral na ko jàmm yàlla yi ak guddi yeeg bëccëg suba yeeg ngoon yeeg waxtu juróom ah harasu yalla bi ban aras bi ban aras yonent bi rañana na jógee na Makka dem salé joge fa war buraq khus jurom ñaari asman dem lamu jël lamu jël tase yoon ci yàlla musa Moussa ne ko del fofu ay géej la yo xamni ak billahi xamna nañ li sax ku ci yëngu bokko ci fa wax yo xamni waxi goor ñi la goor ñi ko dafa am wax yo xamni waxi ñi la jigéen ñi ko ñun nak waxi jigéen ñi ñu waxi goor ñi ñu toy kok mo ñu indi Sénégal